Mm-hmm. yaa ngi dégg écrit bi ñu nekk rek am na ñoo xam ne ñoo ñu mën fuuf. buñ kontaakee ak ñoom dañ ñuy daan ñu leen di daan wala ñoom ñu daan ñu ñaar ñun benn lañ leen di daan te ñoom mënuñoo bëre. dëgg la. xam nga li ma la kon bu defee ah. chaque saison ñu wax tudd la ay combat rek kon santal yàlla xam ne da ngaa bokk ci làmb moo tax. Mm-hmm. noonu noonu la demee ñun suñ tur kenn kolo kolo wuñu ñun suñ tur dañ koo liggéey am ko. dëgg la. xam nga suñu tur mm-hmm. dañ koo liggéey am ko dinañ def nag li ñu war. yaa ngi dégg ñu def lu ñu mm. war nekk ci li ñu war a nekk booy bu def preuve wane lu tax ñu jël la ñu jël la mais booy bu deful mm. preuve wane lu dara duñ la jël ba pare buñ ñu fayee xaalis fay ñu lu ko jaral ñu jël ko mm. noonu la demee loolu tax combat bi taxawoon mais date bi ñu nekkoon war ko bëre bu amul mën na am sax lamb ji du am parce que tamit làmb moom bu xasee tëj moom ñun contrat bi ñuy signé buñ signé date boobu bu ko passé leneen la ñuy waxaat sinon du combat boobu ñu noonu la ñuy doxee parce que tamit moomuñu suñ bopp am na loo xam ne suñuy kilifa ñoo ko moom li am solo bam solo mooy jiili man bëri naa fekk ku ci làmb ji. maa xam loolu. li am solo mooy. Mm-hmm. làmb nit musuma cee def lu ma neexul. Mm-hmm. ba ma dalee bëre ba tey ñaata combat laa bëre nit musuma cee ñëw teg ma far force lu ma neexul man maay ñëw forcer def lu ma war def mooy loolu. te mm-hmm. léegi partagé dafa xew làmb léegi partagé dafa xew. luy partagé comprendre woo bu baax. non dafa xew partagé dafa xew gisoo connexion yi gars yi dañ koy partagé le waaw. ñëw taxaw boo deful dara ñu fanaan fa. fëgg la munoo loolu. ndax ñu bari noonu noonu xale bu may dajal comme xale yi xale bu may dajal noonu ñoom ñoo bëgg ñooy wut. xale bu may ah. dajal damay taxaw xaar nga jéem rek. boo ah. jéemee ba daan ma alhamdulilah boo jéemee lu la ci fekk nga muñuwaat rek. Hmm. waaw léegi daal ah. loolu loolu bëgg indi deux mille vingt bi daal xaw ma ba xam. armée bu benn barak di nga wax dafa mel ni bu arbitre ne woon prix dalay bàyyi combat bi nga diriger lu fa xew yow yaa koy def waaye moom du jël benn initiative ci combat bi. dégg naa la damay ñëw ci première chose bi mais man dama ko bëgg a xamal ne man kenn xaalaluma yoon. moom duggul mu teeru ko mujj. armé déglu ma la bu baax yokkal sa sa voix tuuti. jiir yaa ngi may dégg. maa jiiri. jili problème connexion la wala. sa technicien yi nañu xool. waaw maa lay dégg armé. mani yaa may dégg. waaw bu baax dégg bu baax. bu baax sax bu baax. waaw fëgala ci première chose bi mu waxee laay ñëw ba pare. Mhm. day faral di wax baat boobu ma koy dégg mu doon baat bu ma dérangé ci benn côté. Mhm. mooy day doon préparer beneen com combat moo tax mu dem fële man par hasard laa diggee ci moom ak yooyu. xamal ne dama prouver. dama liggéey lu war a tax mooy bëre kii ci kaw te moom nekkul woon sama yoonu làmb pour mu leer rek sama yoonu moom ci man la neexee su ma bañoon du ma bëre moom loolu na ko bàyyi xel bu baax moom dugg na ko mujjee daal dafa fi li ma def deful xaaju li ma def dégg nga benn bi ñun passé nañ fu ñuy tegee tegee maye non non kon dañuy wuti xaalis fa dañu waxante li fi nekk ñun ñëpp ay naata lañ man ma demoon sama làmb demeen damay uti xaalis ñu ngi dëkk la liggéey mais uti xaalis moo leen yóbbu dee liggéey dur et dur fii la fekk baax ba ñoo dem nag bu amoon bu bi dañuy dem ko suñuy moroom yàlla mooy wërsëgale jaam yi te yamalewul wërsëg ku nekk ak sa mm-hmm. te li mooy nekk da koy reer ji waaye benn baat ñaar il deux trois waru bañ moom warumaa bañ ci gu defet la nekk armé armé jili armé jili daa mel déggoo li fëgg wax de fëgg la waaw non non moom xam nga problème moom mooy lan ah Hmm. xam nga moom problème am mooy lan xam nga problème am mooy lan jiili ah, waaw xam nga naru ma woon sax naru ma woon sax wax ak moom xam nga yow laa mënul bañal dara mais moom dafa amul dégg-dégg dama ne ko boo hmm. déggee dama ne la oh, dafa bokk ci xale yoo xamante ne nii dama ne la jiiri dafa bokk ci xale yoo xamante ne nii dañoo hmm. buuxante wane seen bopp ban tudd leen da loolu laa la wax jiiri dëgg la waaw mais ku la wax loolu kay waxulo dañ laa xal ak yooyu wala déedéet dama ne ko dafa bokk ci xale yi nga xamante ne nii puusante nañ seen live ba génn. loolu laa la wax dama bëgg wax kenn du ko wax wax kenn du ko lekk da nga koy déglu. deuxièmement deuxièmement. deuxièmement xaaral Arma xaaral mu yeggale nga ñëw. waaw no parce que parce que moom benn benn bu muy bëgg nii maa ngi moom dootuñu ko def parce que benn benn bi dootul am. Hmm. parce que damay seetaan naa émission bi mu def. émission bi mu def yëpp day jàpp ni da ko su ma neexoon tey tey tey tey. tey jii nii su ma neexoon combat bi dootul am. Hmm. tey eh. man su ma neexoon tey. xam nga lu ma la. Hmm. non armé man xuloo ma dañuy waxtaan dañuy waxtaan. armé armé moom fi mu ne nii moom xoola fi mu ne nii xam nga lu ko sonal. xam nga lan moo ko sonal armé xaaral xam nga lan moo ko sonal ci combat bi xam nga lan moo ko sonal ci. waaw ah, bàyyi wax ba pare. jili bàyyi ko mu wax ba pare. armé waaw. baat bi muy wax moo may déranger man dafa may déranger. ça veut dire que hmm. moom mooy baatu su ma neexoon tey tey tey combat du am mel ni moom dafa jar lu ma jarul gënumaa seer gënumaa xew gënumaa nekk ci làmb actuellement dëgga suñu doyen la moo ma jiitu ci làmb mais bokkuñu ay position hmm. bokkuñu yoonu làmb kon suy teg sama bopp naan su ma neexoon tey tey combat bi du am dama bëgg a xëccu pour bëreeg moom bu may xëcc bu doon bu may xëcc pour bëre moom mooy jamono yi muy bëre ay ñoom Ama Baldé bizarre mais ñooñ dañ koo daan dafa tardé moo tax mu mu jël ma man tardé wu yàlla xam na ne bu dul damay am adversaire waa léegi léegi garaaw comme léegi léegi léegi garaaw wax nga ba pare ma wax ah. Armé léegi may wax nga ba pare. léegi xam nga xam nga lan moo ko sonal ci combat bi ah moom xam nga lu ko sonal ci fëgg la. xam nga lan moo ko sonal. waaw maanaam li nit ñi def ci boppam moom looloo ko sonal. moo lan lañ def a boppam armée mosoo gis combat jot armée di mel ni di wax rek mosul am. Mm-hmm. mais maanaam buñ la buñ la buñ la tegee loo xamante ne nii day diis sa côté il faut ngay wax wala fëgale lii la mel gars yi lay wax yooyu ñoo lay sonal ngay wax mais moom dama bëgg mu déglu li may wax bu baax man waxuma pour sous-estimer ko. Mm-hmm. waxuma pour sous-estimer waxuma pour tuutil ko moom bu tuuti woon du ma bëreeg moom. dëgg la. yaa ngi dégg dama bëgg mu déglu li bu baax mm-hmm. maanaam ñi koy wax fëgala lii fëgala laa non dañ mm-hmm. koy sonal parce que moom xaaju jab bi ñëwagul parce que ñibbisee guma xam nga li ma la li ah. wax ni jili li may wax ni yàlla moo tax mm. ma koy wax yàlla suñu borom maanaam boo mm-hmm. gisee ni moom bu mu gisee ni li ma wax dama koy minimiser minimiser dama ne la dafa am leneen lu ma doon préparer moo tax dëgg la mais kooku am nu mu demee armée ne fi def ay preuve ma jël ko loolu bokkut ak damay sous-estimer armée dëgg la. champion la moo tax ma jël ko. wolo wolof daf ne pompiteer moo ma gënal pataas kuñ ci tëj sa avocat moo baaxul. merci jili boo bëggee dégg-dégg armée nangu ko. Mhm. mais barki Serigne Touba maa ko gën a maa ko doon international loolu la yàlla dogal. parce que benn bés yu rëy yi ma am. bés yu rëy ma am bëreegu ko. loolu la yàlla dogal gis bés yu rëy ma am. xawla bés yu rëy yi ma am. donc dama bëreeg ñooñu ñu daan ma dama bëreeg ñooñu ñu daan ma loolu am na. Ah, mhm. moom na yàgg ci làmb ji yàlla defal ko jàmm. day jël defet day jël victoire noonu la làmb di doxee. Mhm. Malal Ndiaye ba muy jóge champion d'Afrique laa ko daan galaa Gaston Mbengue. waaw golf ba muy tëggaay laa daan Birame 2 ba muy tegele di daan nees daan saa Kajoor laa ko dóor mu daanu Birame 2. Mhm. waaw kon moom moom dafa am benn côté boo xam ne daf ciy juum ni mu ciy juumee mooy bu nee diw sama doyen la ba pare moom mu am ay douze combats man hmm. ma triplé ko trois fois man ma nekk samay trente et quelques combats. Hmm. soo naan diw gënumaa xew da maanaam da nga waxal yàlla. Hmm. yaa ngi dégg ku la njëkk a siiw njëkk la mos million njëkk la ñam mos succès. non am na lu la ëppale. bu dee dëgg day dëgg rek. yaa ngi dégg. dëgg la. Ama Balde ba may bëreeg moom daa taxaw na fëgal dafa may sens. waaw. déggoo ma de Ama Balde. ba may bëre moom dafa wax loolu Garga Mbossé ba may bëre moom dafa wax loolu. Mm-hmm. nest pas. waaw kon am na loo xam ne li ma ko nangul moom na ma ko nangul. mais fëgg la dafa dogal. fëgg dafa am. armé daan na fëgg la. armé daan na mm-hmm. fëgg la. loolu dafa mm-hmm. baax ci moom. mais fëgg la daan na armé. amul sens li tax amul sens mooy daan naa ñu supéré armé armé douze combats la fi am xawma ma. nañu waxante dëgg. est-ce que yaa ngi dégg. mais mais Feugeula est-ce que armée du lii muy def mooy avantage am ci combat bi. mu déstabiliser Feugeula. non non non mënuma am parce que ñëpp ci làmb xam nañ ni Feugeula boo ko mm. merloowee rek bu meree énervé wu rek gagné na combat boo xoolee sa diggante yaa Garga Mbossé loolu bokk na ci la ñàkkloo sa combat. waaw ba tey bokkul maa diggante Garga Mbossé ba tey bokkul maa Garga Mbossé mi ci rax ma bëggoon bëreeg Zos moo yàq sama làmb. Mm. Zos mi ci ñëw. gonfale ma kërëb kërëb wax wax ma xam ne booy bi ma jàpp ne booy bi du ma moroma maa ko mën foofu di yàkkamti jos bëgg a def leen garga mbose loolu moo yàq sama laam ma garga mm. parce que su may bëree sax sama xel newul ci garga maa ngi pare ba sonal jos ci stade bi avant moo génn stade bi loolu laa gënoon tal mm-hmm. mais kenn ku ne li la yàlla may dañ la koy nangul dama dégg mu def ay émission yoo xamante ne ne fëgal a turam moo tax ma jël ko mais nit mm. boo koy jël ci turam mais am na lu fi def moo tax nga koy jël ci turam dëgg la ngi dégg man may mm-hmm. naa ko dara man may naa ko dara. Mm-hmm. comme moom xale la avenir la mën na am combat bu gën sama combat. Mm-hmm. yaa ngi dégg bu xëyee na woo prince prince wutal ko loolu. combat bu gën fëgg la ay bëre. mais fëgg la prince wutal ko loolu. fëgg la est-ce que du ku dégg combat bi du jàpp ni fëgg la mii dafa bëgg a daw armée. non non daw amu ci xam nga lan mooy daw. daw amu ci promoteur bi xam na li ma waxanteeg moom man doyen laa ci làmb. man du ma wax ci hmm. Mali foro wala ma wax loolu. Hmm. ba ko ba promoteur bi liñ tënk ma ak moom moom xam na moo xam na maa lay wax na la trente 31 bu jàllee wóoratul mu am fi combat parce que man ay këyit laay dund. Hmm. yaa ngi dégg ñun ay mag lañ ci làmb bon am nañ fi bis bu. mais ka ka ka mais fëgg la ka force majeure ku ne xam na ni. am na ci sport boo gis non am na ci sport boo ne gis mais promoteur moom xam na man xam na loolu du ma ci bëgg a sori mais quant daw. amu ci mais moom comme moom dafa bëgg a jël ku am tur ku ëpp tur fëgal la. Hmm. moo tax benn instant man bàyyi combat bi sax mu wuti ku jël ku gën fëgal daf may gën a. parce que comme moom bëgguma woon jël ay supporteram am dañu ko bul jël fëgal la moom def na fi man lu ma fi deful ci li wax moom. Hmm. dama koy bàyyi mu jëli keneen amul problème man sax année saa mu bëggee bëree bëri. armé li fëgal la wax noo ko noo ko noo ko dundee noo ko dundee. waxu teg xel la rek. Mm-hmm. premier ay bu la 31 jàllee bi pour amatu fi avance maa ngi ci leneen. yooyu man mm-hmm. man trente mooy entraîné. barke ma mm-hmm. bàyyi. barke Serigne man damay entraîné pour carrière. deuxième bi ñun ñoo njëkk a waxante promoteur bi lu leer. Hmm. mais ñëpp li dugg ci réew mi bi moo tax bépp activité bu amoon arrêté. Hmm. du du lu xam ne promoteur bi moo ko provoqué. dëgg la. man foofu aw lu ma si wax. Hmm. beneen bi wax dafa. laaj déggin bu neex soo waxee rek laa ko tontu. Mm-hmm. bu ma bëggee def benn mbalit boobu doo laa doon nangu man li ma la njëkk sama doyen nga yàlla mënul def ci àdduna xam nga ma ndax njëkk nga ba pare loolu amul li nga def ci combat ñaan naa yàlla def nag lu toll noonu loolu mën na ne mm-hmm. mais amaana sax ñi nga bëreel mënumaa bëreeg ñoom ndax yow man ñi ma bëreel mënoo bëri adduna noonu la da ngay bëreeg ñi ñi bëreeg ñee mhm. xewoon nga nekkoon nga ci làmbu amoon nga ci tur amoon nga doole loolu yëpp day am mais loo yàgg du ne gis ku la ci mën mhm. lu leer nit ki loo yàgg lu ne gis ci mën yàlla moo bindee noonu àdduna joxul kenn nguur guy continuer. kan moo ma mën kan kan moo ma mën yow. yow daana gooma nga ne yaa ma mën. <laughs> non jiili jiili. allo barki Serigne Saliou Mbacke. boo bëggee ah. gis boo bëggee gis kuy gént ndogu ndogoom neex mu def jàllaabeem toog xoolal armé. non mais booy mais jiili booy bi boole musuma xam ne non kii kii xam ne nii la neexee Armi musuma xam ne théâtre naxate yëfam la seet yow daanakoo ma jili nga ne yow jili sama combat bi passé yaa nga fa waaw dégg-dégg double moteur lan la waxoon daf double moteur la waxoon daf may duma waaw ñaata yoon la faju ji waaw jaabante na ci ardoba barki Serigne Touba boo yi jili boo yi di lappi lappi nii boo yi di lappi lappi mën nañoo wax torop mais bu ñu ah. tëjee barrière bu ñu tëjee barrière bu ñu tëjee barrière yi. Ah, ah. Hmm. xoolal kenn ku ne dama naan la tegal fii nga teg ko. far fo da nam nag yàllaa ko yor man damay wax chaque jour solo li am solo waa xaaral. waaw dama naan moo wax après non. non man bul wax ko arme ko wax ba ba. noo jiili waxtaan baa ngi may doog a neex parce que booy bi nee na loo nekk lu ne dina am ku ci mën mais moom maa ngi moom ñamaguñu. koo ñamagul nag xamagoo lu muy saf armée ci biir wax ji dama dégg ni dafa mel ni daf ne safoon nga safatoo suñ toll ni dafa mel ne yow yow mag nga moom mooy xale biy jug ci làmb yow est-ce que léegi fi bilaay bu woon wax ak moom te te tey laay mujjee tey laay mujjee ak moom joxolante bi nii ndax yow damaa xamul lu ma lay def mais ma wax la dara soo bëggee gis soo bëggee gis ku neex soo bëggee gis ku neex soo bëggee gis théâtre kat rek xoolal armée armée nee na xewoon nga xewatoo euh, xam nga loo euh. nekk lu dina am kula la ci gën a kii mais armé daana gooma wala nag ma daan ba wax euh, wax wax neex na mais dégg dégg ëpp solo dëgg la may dégg hmm. nit ki lu nekk lu ne hmm. bu ci ku ko ci mën hmm. loolu la wax ngay jëp naan dama daana non non damay sabablu daal la mais kii daal man ak yow yàlla rek moo ko xam. non non non d' accord loolu mën na nekk mais jili li mu wax dégg naa ko mën na nekk mais xam nga lan mooy problème bi. Hmm. xam nga lan mooy problème booy danoo xoola booy danoo mën a booy dañuy théâtre xam nga tax dañuy théâtre xoola xam nga la ma tax dañuy théâtre eh fii kenn théâtre fii ay mbëru làmb fi de. booy dañuy théâtre de xoola Jokkel da doon théâtre double moteur da doon théâtre mi ngi théâtre combat bu amee bu dee combat bi dina am bu amee ma wax la dara jiili fii laa la ko waxee hmm. billahi wallahi taalahi di nga hmm. seeti armée mu lay làqatu wala nan la sek ak c'est-à-dire xam moo tax mën naa hmm. am ndam nag yàlla mën na koo jaglel ndam jour boobu ndam moom yàllaa ko yor mais armée mi buñ tëjee barrière yi bu ma paree ci moom fu ma romb dina ne ma capot bi na nga def di ko def loolu di nga def ko capot bi <laughs> sañoo loolu <laughs> no armée dafa neex quoi oh. armée armée dafa ah. neex yow armée mënumaa duma yow jiili armée mënumaa duma Feugeula eh Feugeula xaaral armée mu ñëw armée est-ce que yow di nga ah. daje kàpp euh, ne ko kàpp moom mu ngi wax théâtre mais moom mooy g sketch si si diggante bu gàtt moom man may xale xale sama yëpp ma def ko pour bii yëpp ma passé ko ci utum doole moom mm-hmm. muy mag fuuf naan ma dina ma teg lu ma mm, sama moroomu góor mënul teg bokk ci théâtre nañ waxante dëgg kon loolu <laughs> ko ëpp doole benn mu neex mu naqari yaa ko maa ko gën a mu neex mu naqari xale waaw moo mag mu naqari lim ma sama yaram yéen attanu ko mu neex mu naqari. moom bu ñu demee teg lu ma. yaa ko dàq bëre ma ne ba xam yaa ko dàq bëre. man maa dàq bëre man. yaa dàq xeex. moom moo ma dàq. moom moo la dàq xeex. waaw. yaa ko ëpp gàllaay. moom ku ñeme fitis la. mais man lu weex tàll laay indi te dama koy daan. Feugeule looy to ci loolu. man daal xaw ma man daal xaw ma xaw ma ay fétis xaw ma ay lu weex xaw ma ay lu ñuul man yooyu xaw ma dara mais li ma xam dara li ma leer ba leer ah. li ma ah. wóor la wóor mooy armée man après non man xam naa ne théâtre dina gars yi dinaa wax gars yi jël ko parce que jiile. jiile wax la ah. benn ma wax la benn affaire. Ah. Euh, lamb dafa am nu mu baaxoo. mooy da ngay da ngay bëreeg da ngay bëreeg say morom. Mm-hmm. bëreeg say mag. Mm-hmm. bëreeg say rakk. Yaxya Jóob Yékini def na ko. làmb non non noonu la baaxoo. xoolal képp ku fi def carrière ku fi def bu gudd ku ne. xoolal ci li ma wax mm-hmm. làmb làmb log wax làmb log yi ndaanaan yi. Ah. seen carrière bëre trente combats wala vingt et quelques combats. teelu ñoo bàyyi làmb xoolal seen carrière dañuy bëreeg seen morom. Moustapha Gueye def na ko. bëreeg seen n'est-ce pas. tey nag di bëreeg say rakk taxul nga nekk yaafuus. dëgg la. bëreeg say rak taxul benn booy. Mm. mën la cee teg lu la neexul. man boo mais fëgala li ma fëgala li ma bëgg a xam. yow yaay naan say rak say rak say rak. armé nga ko dix ans. non dama ko koy nangul xama nga tax dama ko koy nangul. Mm. mooy juum na juum boo xamante ne balaa koo xam ñu bëre ba pare. su dee làmb ji dina am bu dee làmb ji dinay am yàlla na yàlla affaire yëpp jàll mu am juum na juum boo xamante ne balaa koo comprendre mu jóge arène nationale ba ñibbi këram bëgg la hmm. bàyyil wax jóom wala déggoo ma non non ankay xam lan moo tax xam mën nga ma daan non non mën nga ma daan mën nga ma daan ndam yàlla moo ko yor loolu rek bëgg de mën nga ma daan waaye bëgg la da koy ceet lax jiili mën na ma daan bëgg laa ngi dox sa xel te bul ko nangu. non non jiili. booy dañoo am doole booy dañoo am doole. booy am nañ booy am nañ doole. booy mm. am nañ fit. booy am nañ doole booy am nañ fit booy mën nanoo bëre. te booy bu la bu arbitre par dañ lay forcer. xam nga ma uh-huh. loolu uh-huh. mën na ne mais ma ne la. Uh-huh. man li ma wóor te ma mën ko assurer ba assure ko. ndam yàlla moo ko yor. mooy su armée paree ci man. ku ko seeti dina ne nag combat bi ma mës a am musuma ko am sama àdduna. loolu man man man loolu moom mën naa ko assuré. d'accord Armé. waaw mën nga daan nag. waaw mën nga mën nga daan nag. moom dafa mel ni téeméer téeméer. bëgg la ni ma déggee Armé bëgg la mu wax. daa mel ni daa bëgg bis jàppe ba bàyyi la di nga toog dix ans yoo xam ne loo lekk day lewet daa mel ni loolu la bëgg a wax. loolu la am yéene. Hmm. mais moo xamal balaa nga naan naam day fekk nga ne fa. dëgg la. Euh, toog sa saal sa kilim di la ub ngay wax say wax. mën na lool man man man. <laughs> jox ko sama ji man ñëwuma pour jox ko sama bopp de na xool ñi ma bëreel ñëpp ba xam man kenn mës na ma cee teg lu ma neexul man bu ma mm. jàppee làmb ji day jeex bu ma mm. jàppee làmb man nekk fa di jàpp di xalaat lu ma war a def nekk ma fa di mm. jëmale suba aussi bu ko neexee na daw stade bi yëpp ba ñu quatre avertissement mais li ma wër daw daw fëgg la yow te xel ngay def yow budul ne nga def ñaari pas jay jay xaw a bi non loolu loolu man maa la xel fuuf man loo te xel mi naan na loolu bëgg man ndongo daara leen rek leen rek moo ma neex leen rek moo ma neex ci affaire yi mooy hmm. moom génn na kaaro yi te xamagul ne génn na kaaro yi. lu tax nga ni génn na yi. non damaa xam ne wàcc na kaaro yi parce que li mu li mu teg ni loolooy am ci li mu calculé loolooy am ci làmb loolu du làmb ji du demee noonu. man maay xool làmb ji man xool làmb ji ma neex mu demee noonu. boo ñëw dama lay chargé téye la bu ma la téye da taxaw fu ma la jaarloo fa ngay jaar. déggoo li ma la non dama ne dama ne. dama ne mën nga mais xam naa ni din dinu fëgg la xam naa leen. waaw mooy dinu malika waaw armée bu benn baraak rek lay muslu. ma wax la dara. waaw. yéegaguma ay din. Mhm. maa ngi dëkk bu mag bi xam nga lu may def est-ce que. Mhm. flexion poids appuyé. moom laay def mi ngi nii ba flexion poids appuyé. mais yow sa kër entraîné. non yow booy dañ maa jaral yooyu daj yenn affaire yi jaral luñ ma ko. Eh, bul bul xeeb combat bi nag. ma xeebuma combat bi mais eh. dama ne la xam nga lan mooy problème bi moom fi mu teg combat bi moo tax ma xeeb combat bi parce que damaa xam ne fi mu teg combat bi làmb ji eggul foofu moom bu ñëwoon am nu mu nu mu def ci bopp bi mën na cee génn mais li mu def ci boppam nii di indi làmb ja loolu du baax xam nga lan moo tax. Mm-hmm. armée mënul mën a bëre mën a bëre ba dàq ma bëre loolu mënul nekk. bu dee làmb rek làmb ñu làmb bés bés mm-hmm. Mm-hmm. bés bés bu ne man suma neexee bés bu ma ñëw ma gérer ko man ak nu mu ma neexee sama coobare bopp parce que loolu yàlla moo la koy may du sama co yàlla moo lay may loolu mm-hmm. mais yéen ñaar ñëpp yéen ñaar ñëpp armée dafa mel ni benn yoon nga bëri arène nationale waaw Feugeula daa mel ni benn yoon nga bëri arène nationale. waaw benn yoon ah. armée mbokk yi ñu ngi seetaan ci lamb armée benn yoon la bëre arène nationale dafa ñàkk.